ilmin yuntafau bihi aw sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalixin yadcu lah ala alihi wa saxaabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ayul jamul karim ñu ngi nuyu jotaay bu tedd bi nga xam ne jotaay gën na ko bëri nit te gënu koo tedd tedd na ngir fiñ ko fase tedd na ngir jamono giñ ko fase tedd na ngir li tax ñi fas ko tedd na it ngir sette yi nga xam ne ni yàlla tànn na leen ñi ñëw teewee ko ñu ngi nuyu suñuy nijaay yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi cheikh Mouhamad al Qurashi cheikh Sayid al Arabi suñu yaay sayida eh, Aïcha sayida Zeynab sayida eh, Mariama ñi ma gis ak ñi ma gisul ñëpp ñu ngi nuyu kilifa yi teew yëpp di ndokkeel ci bés bi di ndokkeel Cheikh Baye aki maam Baye ak magam ak i rakkam di nuyu papam alxaaji Cheikhu Seck di ndokkeel Cheikh Baye ci nga xam ne nii moom la def di nuyu suñ doom Cheikh Ahmadul Moustapha mi nga xam ne moo méngoo waxtaan wi ci wax ci ngëneeli Sayda Aïssatou Sarr binti Cheikh nga xam ne lii Cheikh Baye def nii maam Baye ñi teew ci place bi dafay tegtale ne ay yaayam xaritam lañ ay nijaayam xaritam lañ ay magam xaritam lañ ay rakamit xaritam lañ loolu nag moom sosu ko yaayam noonu la meloon ku ku ubbeekoon la këram ci Nigeria jaarukaay la woon boo xam ne ni njëkk Sénégal ñu bari foofu lañ doon dal mu nekk nit ku yaatu ku bëgg nit kon nag tumurankewul mu bàyyi ay njaboot goo xam ne dañuy jaar ci yoon woowu moo tax ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel say mag yépp ci jotaay bi nga xam ne moom nga fas nga xam ne euh, lu ci gën a kawe mooy jokk waajur yi gannaaw buñ fi jugee mbokk gi tim nga xam ne ni yaa ngi koy toppatoo bërki démb rek dama jàng benn téere am xadis ju ma taxawloo yonent bi sallallahu wax ne inna bani fulaan laysu bi awliyaa ali lakin lahum rahiman sa abulluha bi bilaaliha wax ne diw ñooñ diw ak seen kër duuñ sax samay xarit waaye mbokk lañ yoo xam ne force ma tooyal mbokk googul li ca war a tooy danaa ko def léegi nag boo amee mbokk boo xam ne xarit la kon loolu waxi nopp loolu ñu ngi sant yàlla ci loolu xaside yi kii jàng rek dafa ma eh, taxawloo ci benn béyt bàyyi di wax ne amalaktuhu zaati wa ruuxi wa nafsaha wa ahli wa ahbaabi wa man bi tamassaka mu dolli ma yaakaar ndax Seydi Ali dafa ma sa wax Seydina Cissé rahimahullah radiya anhum jamian ne ko du ma nangu ngeen yàqu ndax sëriñ bi laa leen jox dama leen a sédd sëriñ bi moo tax du ma nangu ngeen yàqu bàyyi nag wax na ne ñun ñëpp yonent bi la ñu jox wa malaktu zaati wa ruuxi wa nafsaha wa ahli wa ahbaabi wa man bi tamassaka loolu yaakaar ju mag la yaakaar ju mag la te ñëpp a koy doxe ñëpp a ngi nokki pour dundal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ xam baay xam ay mayam fu mu toll bu boobaa lépp lu da mën a dem ba mën a feggoog te saaxara indi xayru ahmad lu dul ku yonent bi rek tuuti na ci man te ku àggut ci ak ñàkk àgg ci foofu rek moo tax àddina dañuy sonal moo tax niti àddina man ñoo sonal waaye koo xam ne ci julleem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaatullahi wa salaamuhu salaatam biha tasqil muluku xadaaiqi maa ngi julli ci yonent bi julli goo xam ne buur yi danañ roose samay samay tool kon nag nguur ak àddina warul ñoo jaaxal la yonent bi waxoon ne saxaaba yi lal faqra axsha aleykum duun ne ñàkk laa leen di ragalloo laay laay ragal ci yéen li may ragal kay yàlla may leen àddina ngeen xaccoo ci mu alag leen bàyyi bindoon na Seydi Ali si sa benn leetar di ko wax ne ko lal faqra axsha aleykum duun ne ñàkk ragal lu ma la leen ñàkk fekk boobu daf ko bindoon leetar di ko ñaan pour mu garanté ko mu aj mu dem ba ci kanam mu ne xaaral ma ko mu ne ko waxal leneen waxuma benn aj aj aj laa wax waaye li ma ragal ci yéen duun ñàkk te waxoon na ko feneen ne gis naa ñi dugg aljanna joo xam ne dootuñ ci génn ba bu ñuy duggee aljannaay dëgg-dëgg gi loolu nag li ñu ciy dimbale rek mooy waxtu wu nekk nañ sax ci mbooloo moomu yàlla nañu saxal ci loolu bëgguñoo guddal wax ndax wax ji ñu ko war a wax wax nañ ko waaye dañoo bëggoon a feeñal rek euh, euh, sant yàlla ci jotaay bi ndokkeel ñi nga xam ne ni ñoo ko fas nga xam ne benn kaamil soxlaay àddina ak àllaaxira yëpp na ci rawatina juróom ñaar fukki kaamil ci jamono ji nga xam ne jamono yëpp yonentu bi sallallahu alayhi wa moo ko moom waaye jamono ji nga xam ne moo feeñ ci la feeñ yàlla dana fiiral jamono jooju ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ba du em benn jamono ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ñëpp ñu ngi ñaan yàlla gan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yal yàlla may ñu xol yoo xam ne nii dana teral gan ñi yàlla yàlla may ñu poos tim yoo xam ne dana teral gan ñi yàlla na yàlla may gan ñi tim teggin goo xam ne nii xaj na Medina mën naa dugg Medina ba génn Medina te du fi yàq dara yàlla bu fi kenn yàqu yàlla bu fi kenn yàq yàlla na yàlla nangul ñi gàmmu gi te lépp lum nangu ci suñ jëf yi baax yépp lépp lu ci yàlla nangu yàlla na ko yàlla def ci misaan xasanaati Cheikh Ibrahim mi nga xam ne dafa ne wali walahum yëg fi taalluqu daiman bi zeyli shafiil xalqi man ahsana sunan doy na ma doy ñi nga xam ne ñoo topp ci man ñi aju rek ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi ñi ma topp yëpp may naa la leen kon ñun moomeelu yonent lañ sallallahu alayhi wa sallam moomeelu yonent du yàqu du yàqu du yàqule yal nañu yàlla saxal ci lool allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmaani rahiim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahiim qul auzu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq min sharri gaasiqin ida waqab min sharri naffaathaati bil uqad min sharri xaasidin ida xasad bismillahi rahmaani rahiim qul auzu bi rabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min sharri lwaswaasi alxannaas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 alladina yuminuuna bilxaybi wa yuqimuuna alsalata mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflixuun sadaqallaahu al-aziim wa ballaga ar-rasuulu al-mustafa as-saadiqu al-amiin nahnu alaa daalika mina ash-shaahidiina wa bihi mu'minuuna al-musaddiquun wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahi al-aliyyi al-aziim radiyallaahu an saadaatinaa abii bakrin wa umara wa usmaana wa aliyin wa talhata wa zubayrin wa sa'd wa sa'iid wa abii ubaydata ibni al-jarraah wa hamzata wa abbaas wa ja'farin wa aqiilin wa al-hasan wa husayn wa faatimata zahraa wa khadiijata wa aa'ishata wa an saa'iri ummahaati al-mu'miniin wa radiyallaahu an ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ajma'iin wa an at-taabiciin wa taabici taabiciina lahum bi ihsaanin ilaa yawmi d-diin اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما في رضاك عنا اللهم اجعل القرآن عظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن عظيم الشافعا مشفعا فينا ولا تجعل ما أحلم مصدقا فينا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 العظيم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضاعته وحرجه امد علينا من حماك أمناء صراطك من حل به يمنعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك لا يلأ ولا يضام اللهم ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ من شرورهم اللهم اكفنا مما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر حينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا وحرنا وعبنا وطائنا وعاصينا عامين اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما همنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارنا الاجابه عينا حينا في انفسنا وفي اهلنا وزرياتنا واصحابنا وخدامنا واحبابنا وانصارنا من حضر من الجميع وغاب وزدنا واعتنا وارفعنا ودافعنا واحفظنا وسجل امورنا ورحب داننا وقلوبنا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 wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin